Ousmane Sonko di wax ni fii ci réew mii di Sénégal amul benn école boo xamante ni dañ fay former li nga xamante moom la ñuy wax ay ministre bëri na nag ministère yoo xamante ni mën nañ ne jamono ji ñu ci gouvernement bu yees bi mën nañ bi mooy nekk seen premier nekk ministre ci réew mi di Sénégal benn ci man mi waaye loolee lépp nag tekkiwul na maam liggéey bi nga xamante moom lañ leen sas nii kat dañ ko mënta liggéey ñi nga xamante ni moom lañ leen sas lépp am na yaakaar ne mën nañ mën nañ ko ndax nag wóolu nañ leen te it am nañ détermination te it am nañ yaakaar ne dinañ liggéey seen peuple ba nga daan ñëpp duñ leen yóbbule dara wala sax ñoom ñi sax ñu gañe leen si poste yi nga xamante moom lañ leen jox moom moomee di Ousmane Sonko nag di wax ne maa ngi soññi ñi nga xamante ay ministre lañ ba si man mii sax ñu moo di bëgg-bëgg askan wi nekk mbindaanu askan wi lépp loo xamante ne askan wi bëgg nañ ñu daal di taxaw ba nga xamante ne yaakaar gi nga xamante moom lañ ñu yaakaar ba teg ñu fii nag yaakaar googee ba ñu tas ñu fexe nag maanaam ba lépp loo xamante mën nañ ko rek ñu daal di koy def ba lépp loo xamante sax mënuñ ko tamit ñu am si ay njéemte yoo xamante yu jéggi dayoo lay doon kàddu yi ki nga xamante ni moo di président Ousmane Sonko wala premier ministre bii di Ousmane Sonko.